la la fa la la illallah fa la la la la la. that love. mu jëm ci. ci turu seen jëwriñ ji. mais ci turu suñ jëwriñ ji. mooy jëwriñ kër gi rek. mooy jëwriñu kër gi rek. gii. nee na kër gii. moo yilif gan bàyyi ko. moo yilif gan bàyyi ko. xam ngeen fi muy waxee. xam ngeen fi muy waxee. xam ngeen ni muy waxee. xam ngeen ni muy waxee. waaye sa nag daa dogal. waaye sa nag daa dogal. jëwriñ ji di Serigne Cheikh Fall. ñu naan ko Serigne Cheikh Ndigal. magam ju baax ji. nga xam ni loo wax ci moom. xeeb na ko. waaye magam ji itam. loo wax ci rakam ji rek. loo wax ci rakam ji rek. xeeb na ko. bu sañoon ëpp fa. bu sañoon gën fa. moo waral kàddu yi ñu leen di jottali. moo waral kàddu ci bëgg. kenn merul. nee kenn merul gi. moom itam rakam yu baax yëpp nga daje. nee moom itam rakam yu baax yëpp fi daje. njabootu njabootu suñu waajur wa. Serigne Cheikh Fall Baye Góor. ñi ngi ñaan su borom mu dolli ngërëmam ya ak njabotu ñaari kër yi and nga xamni suma ko waxe ngeen xam li ci djublu kenn ku na xam nga ni kër yi mom genn kër rek la waye bu ngeen gisee sa yi serigne fan accé wax bo la ko def ala alalam ji ñu ko yoral ki ko yor te waxtu wu nek lu mu yaakaar lu mu yaakaar ni. su ko defee. baa mu wax ko. mu mel na ku gënal. mu mel na ku a mu nuur te noona. mu nuur te noona. faaw bu sëñ Fall dikkee kat. du yem ci toogaayam képp. day wax lu. day wax lu. day wax kaddu yi kaddoom la. kaddu yi mu lay wax sëñ Cheikh kaddoom la. waaye seen i kaddu nag. waaye ñëpp nag. ñëpp a nangu. nee ñëpp a kër yi may waxal. kër yi may waxal. du ñaari kër genn gi rek la. du ñaari kër genn gi rek la. jëwriñ ji nag. nga xam ni waxtu wu ne. xel maa ngay xalaat. lu mu defal kër yëpp. lu mu defal kër yëpp. waaye bàyyiwul kenn. moom ñëpp a xam ni. moom ñëpp a xam ni. sëñ Cheikh Fall ndigal nii. ab daf la. bu wér jëng nag bu wér jëng nag. waaye nam dafa woon mooy. waaye nam dafa nag ak ndof moom. nen ko jot. nen ko jotte. muy muy guddi islam gi tax ka tax ñu ko. génne woon nañ ko. ni li muy woote ci ko woote. nekkoon du ko woote. waxal nañ ko Serigne Touba Cheikh Saliou. waxal nañ ko Serigne Touba Cheikh Saliou. nee na dani. na dani. xanaa li ñu may ji ma barkeeloo ko. ndax jiñal nañ ko ki ñu bind lépp. ndax ko ki tax bi. jiñal ko Serigne bi. jiñ ko fi Mbàkke bii kon nag nee barkeeloo ko kon nag nee mu barkeeloo ko kon nag yéen seen waa ji xam ngeen ni kon nag yéen tamit seen waa ji xam ngeen ni du def yëfi nit dof ko wute nit ñi ab dof nag mooy ko wute nit ñi aw jëf loolu moo di dof waaye ndofam gi nag nee du génn yoon de kon yoon wi la dofal kon yoon la dofal lu am jox na ko yoon wi lu mën a defal na ko yoon wi loolu da leen koy seereel sama ji ak rakam yu baax yi mu àndal nga xam ne ñooy seen i bokk kese rek sëñ Cheikh. bokk kese rek sëñ Cheikh digal. kenn ci ñu baax ñi daa wax ni. kenn du ko gërëmee. kenn du ko gërëmee. ab jaam ni yow. ab jaam ni yow. xanaa nit boo koy gërëm. xanaa nit boo koy gërëm. da nga koy gërëm ci def. wala boog lam la defal yow. wala boog lam la defal yow. te deful deful bokk gi. te deful bokk gi. defoo ko. defoo ko. suñu borom ma ko def. am te kon buy gërëm kay. am te kon buy gërëm kay. nga gërëm suñu borom ma ko def. nga gërëm suñu borom ma ko def. waaye ki la bokkoon nag. waaye ki la bokkoon nag. moo a gërëm. bu dee mbokk. da ngeen a bokkoo. bu dee mbokk. bu dee mbokk. bu dee ab jàmbur. kon bu dee mbokk ba noppi. bu dee mbokk ba noppi. bokkoo bokk yi. bokkoo bokk yi. sa mag yi sa rakk yi gërëm nañ la de ñu ngi ñaan sa borom ba gën a not sa xol boobu sa dara génn yoon wi boobu sa dara génn yoon wi sa lépp yaa ngi nekk gën nekk ci yoon wi yoon yi mooy tey mooy ëllëg yoon yi mooy tey mooy ëllëg ginnaaw soob nga sa lépp nag ginnaaw soob nga sa lépp nag war naa rafet njort yow war naa rafet njort yow coow li bari bari coow li muy bari bari sa dara génnul yoon wi sa dara génnul yoon wi loo am joxal nga yoon wi loo man defal nga ko yoon wi loolu kon sëñ Cheikh doy na sëñ baa ngi ñaan nag ñëw gi mu ñëw. xam ne moom bu ñëwuloon tam. xam na ne moom bu ñëwuloon tam. fi nga nekk moom nga fi nekkal. fa nekk yow la fa nekkal. fa mu yu baax yii. da ngeen di mooy fii. ñu mooy fee rek. ñu mooy fee. mu dëgër kër. mu kon jërëjëf di kaddu yi. kaddu yi. waxuñu ko ngeen aj bu neex bi. jar na ko. ndax fi añ na fa.

ñu ngi ñaan mu guddal saw fan bu baax te wéral saw yaram bu baax liggéey bi ngay liggéey sa waajur bu baax wa di ko liggéeyee sa maam yàlla nga ci am ay ndam yu bari tam yàgg lool te ànd comme ñu baax ñëpp nag ci barke borom bis bii nag neen mi ngi ñaan nag lii nu fi bokk teewe ci barke borom bis bi yàlla ko fi bokk teew bu kenn bu la bu dara metti kenn xanaa lu dul kattan goo mën a liggéey sëñ ci sëñ bi mën na ko yàlla ko def waaye xéwal yi moom na ne gàññi nag faal nee ba lépp ñu mën ko def nee jërëjëf faal jërëjëf faal nangu leen ñaan nangu leen ñaan ñaan jotaay bu ko mën a def lool lan la yàgg